bu tawee ñu boole li ñuy lekk ak taw beeg euh, ban beeg lépp je crois que loolu danger la bu njëkk ba dafa amoon service d'hygiène fu nekk muy dem. Mhm. di saytu nit ñi dañuy lekk di saytu dëkkuwaay yi. Mhm. tey am na ay kër yoo xam ne ay foos a fa nekk da ngay xëy suba rek foos yi wàcc ci nekk ci di di mel na mooy na ay taw. mais mais kenn du ko contrôler kenn du ko dindi. te population yi amul amuñ culture boo xam ne dañuy jógandoor seen bopp. pour daal di aar seen bopp. ñoom toujours loo wax rek ñu ne président wala état bi. dëgg la bon yooyu yëpp ay problème la. xaj nag bu demee ba matt nit ba di ko rey. je crois loolu. franchement nit ñi war nañ ci ki ko moom mooy responsable. Mhm. suñ ko jàppee dafay mel ne moom moo màtte. Mhm. moo rey. Mhm. noonu lañ koy àttee. dëgg la bon peine yi nag bon ay délit la mën na dem un mois ba cinq ans. voilà yow de ku la am avocat jël ndax li nga fi lijjanti ci ay dossier defe naa bëri na euh, lan ngay xaar tey ci quartier général bi maître. ah man kay xanaa yéenay xaar ci man dara man quartier général bi xam nga yéen da ngeen di wax rek may tontu. maa ngi doon wax ak sama xarit Daouda Mine journaliste ba léegi ma ne défendre naa opposition défendre naa presse. dëgg la di ko wax ne ko ñoom euh, Babacar Touré bi muy soog a def euh, sud communication. Mhm. bi mi ma rendalee ci kawam. Mhm. boobu sax xale avocat la mais man la wóolu woon man maa ko défendre. Mhm. ne ko défendre naa fi Mame Less Dia. eh oui défendre naa fi Abdou Latif Coulibaly. eh oui Talla Sylla bañ ko dóoree ay marto maa ko mais ñoom ñëpp a <laughs> ah, ah, ah, laaj laaj leen. <laughs> laajleen new ma presque en tout cas daal ah. man liñ may laaj mooy mhm. en tant que avocat waxuma ne ne dinaa la gañaloo procès mhm. mais sama lépp loo xam ne mën naa ko mhm. ah ci ci ci ci pexe uh-huh. ak ci ci ci ci ci ci droit uh-huh. bu fekkee may sa avocat ca loolu lañu suñu règle wax uh-huh. naa ko ci def ba nga xam ne mooy li ñuy wax diligence lépp loo xam lépp loo mun buñ la jëlee comme avocat na nga ko def pour sa pour dégg naa tamit euh, journaliste yi ñoom Chérif Dia Mamadou Mohamed Ndiaye gars yi naan euh, euh, li nga nekk awokaa moo tax nga nekk politicien bu rusé yore ji koy njomboor. <laughs> ah avocat politicien nag tey day am na benn réunion politique bu ma demoon. man leen. Hmm. ni ngeen xaw a génnee ruse ci politique. Hmm. politique boo koy def da ngay nekk républicain. Mhm. sincère di ko teg ci yoon. Mhm. li nga xam ne moom moo war a nekk sa préoccupation. Mhm. mooy jëmale réew mi kanam. mais amul naxaate man daal vraiment di politique di nax sa morom ak yooyu daal man. Mhm. vraiment que ruse nag mën nga ko ute feneen. Mhm. waaw mën nga ko mais mais ko jëmale ci nax nit nag. d'accord bon ñu ngi lay xaar euh, bu ca kanamee tuuti nga fekk suñu ci plateau bi merci encore d'avoir accepté invitation bi euh, ci quartier général euh, maître. bokkuloon ci avocat yi Cheikh Béthio yi waaw waaw avocat Cheikh Béthio avocat sama papa Thione Seck. Euh, avocat euh, dossier yu bëri ah. yu bëree bëri kay laajal Marie-Louise mi nga xamante ni tribunal lay xëy di fa gortu. <laughs> non mais boo xëyee kay da ngay dégg turam rek ci journaux yi ci réseaux sociaux yi moom turam moom. c'est vrai que am na ay nit yoo xamante ni tout le temps da ngay dégg seen tour moom mhm. maître Ousmane Seye def ci boo xamul na bëri na surtout yoo xamante ne presque dix dernières années yi bokk nañ ci dossiers yu gën a mag mhm. parce que gis nga liggéeyu avocat dafa nekk loo xamante ne dafa war a nekk sérieux mhm. nit ñi suñ la xamee ak sérieux dañuy wóolu dox la seen dossier parce que layal nit dafa métti nit ki day mel ni yow àddunaam yëpp la la jox il en va de sa liberté mhm. de sa crédibilité mhm. et de son honneur mhm. donc soo yëkkati sa dossier jox ko nit da koy jox ko xamante ne doy na la leer na la ni yow dossier bi dina ko topp ba keroog di ko négligé daal Pape parce que bëri na ay avocat bëri na ay avocat yu sérieux samay xarit lañ am na ñoo xamante ne voilà mooy loolu mais moom bokk na ci dossier yu bëri yoo xamante ne fii Sénégal lim nañ ko ci je pense que loolu euh, euh, mën-mënam la ak compétence am la ak voilà wóolu bi nga xamante ne ñi wóolu nañ ko d' accord voilà intéressant en tout cas bu yegsee dinañu waxtaan ak moom et puis il sera avec euh, Daouda journaliste euh, fii ci euh, groupe Futur Média mais en même temps moo jiite site internet bi di www.igfm.sn xalimaam nag du laal suuf ci wàllu yoon moom Daouda Mine comme Marie-Louise Ndiaye il sera avec nous ak ki nga xam ne moo di maître Ousmane Seye mais d' abord dama bëggoon ñu jàppale téléspectateurs yi nag ci seen suukaru koor yi nga xam ne ni boobu ba tey ñu ngi leen koy séddale enveloppe bu toll ci cinquante mille kuñ ko may nga jël ak fi weer wi toll bu la neexee itam nga tànn leneen